jërë jëf yéen ñi taamu li nga xamante ni moom mooy réew mi dalee nag jàmm ci seen li gën a fës ci xibaar yi eh, fii ci biir réew mi ñu tàmbalee ko ak coow li nga xamante ni moo am ci lii di diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr ci ay audio yoo xamante ni dafa am ci diggante Adji Sarr ak Mamour Diallo mu nekk loo xamante ni nag commencé naa fuité ci réseaux sociaux ba ñu bëri tàmbalee jaaxle ci li nga xamante ni moo xew ci diggante Adji Sarr ak Sonko ndax du li nga xamante ni moom mooy complot bi am ci lool nag ñu bëri sax ñi ngi sàkku ci ki nga xamante ni moom mooy doyen des juges mu daal ubbi ab enquête ci mbir moomu daal di sax woo ki nga xamante ni moom mooy Mamour Diallo ngir déglu ko eh, ci audio yi nga xamante ni moo tàmbali fuité fan yi ñu génn dem ba sax ki nga xamante ni moom mooy MC Niass di yëkkati ay kàddu ne moom sekk na waxtaan ak ki nga xamante ni moom mooy Adji mii mi fësal ne li nga xamante ni la nekk dara nekku ci dëgg bi la coow nag tàmbale naa bëri ci biir dëkk bi ba nga xamante ni foo toog moom la ñuy waxtaanee ba tax mbir mi fi mu nekk nii ñu ngi sàkku ci ki nga xamante ni moom mooy waa justice ñu daal di jël dogal ci mbir mi nga xamante ni daanaka mun na indi coow ci biir réew mi ñu wax ci beneen mbir boo xamante ni moom moo am ci biir Sénégal muy ab ndaw di xale bu jigéen boo xamante ni mi ngi am lu toll ci fukki at ak ñaar mu daal di faatu ci ab lakk fa nga xamante ni mooy Mbuur ca fa ñuy wax bay dëkk fa la mbir mi amee muy ab lakk goo xamante ni moo amoon ci ab kër ci ajuma gi nga xamante ni la ñu génn ginnaaw ci loolu nag kër ga ay yàq yàq yu bëri am na fa ba fi mu nekk nii police ubbi na ab enquête ngi xam lan moo andi jiyee jooju ñu wax ci li nga xamante ni moo jëm ci feetu indépendance bu ñu génn Macky Sall daal baal lu toll ci juróom-ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ci ay nit yoo xamante ne ñoo nekkoon ci kaso yi bokk na ci nag fukki taalibe yi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon ci kaso bi te bokk ci ay cantaakun yu ñu tegoon loxo ci li nga xamante ni moom moo amoon fa nga xamante ni mooy Medinatu Salaam loolu nag nekk li nga xamante ni moom moo gën a fës ci ni baal nañ leen ci li nga xamante ni moom mooy feetu indépendance bi nga xamante ni saa su nekk président Macky Sall day baal ñi nekk ci kaso yi ñooñ nga xamante ne mooy cantaakun yi ñu tegoon loxo nag ñi ngi leen jàppoon ci ñaar fukki fan ak ñaar ci atum 2012 ci li nga xamante ni moom moo ñeeloon ñoo ñu faatoon ci fa nga xamante ni moom mooy Madinatu Salaam te ñu tegoon ci loxo ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Béthio desandi si li nga xamante ni moom mooy wàllu fête indépendance bi te président Macky Sall daal di jël dogalu takkal ay raaya ay ñenn ñoo xamante ne ngi jiite institution yu mag yi nekk ci biir dëkk bi ku ci mel ne Moustapha Niass nekk président bu assemblée nationale Pape Diop nekkoon ancien président bu assemblée nationale ki nga xamante ni mooy Idrissa Seck jiite conseil économique social et ki nga xamante ni mooy Aminata Touré tamit daal nañ ko takkal ab waaye tamit ki nga xamante ni moom mooy Aminata Mbengue Ndiaye tamit takkal nañ ko ci raaya yooyu nga xamante ni démb kii di président Macky Sall yëkkati na ko muy ordre national du lion tappal leen ko ngir sargal leen ci liggéey bi nga xamante ni def nañ ko ci biir dëkk bi. li moo nekk li nga xamante ni moom moo gënoon fës ci xibaar yi ci biir réew mi ñu di jox di daje suba ci yeneen xibaar fi nga xamante ni mooy réew mi officiel.